allo. alo alo allo. allo oui Guigui na nga def. maa ngi fi ba yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax a baax. noo dundee confinement partiel bi. waa di euh, di def comme ñëpp rek ñu ngi ni ci terrain bi nekk nii di sensibiliser. Mhm. donc man boo xool sax fi une semaine maa ngi def benn caravane de sensibilisation. Mhm. di jéem a distribuer ay euh, ay dons de première nécessité que ça soit javel euh, euh, comme ni koy waxee détergent yi ak gel antiseptique yi. Mhm. donc tey ñu ngi nii ci yoon bi damay gunge sama sister Oumou Sow médina mhm. moom tamit mu am lu mu def ak waa médina d'accord ci ci yan gox ngeen demagum. yan yan gox ngeen euh, demagum wala fan ngeen ciblé pour dem fa def yooyu don. ah ma bu baax chérie. ma ne yan yan gox ngeen demagum ngir joxe fa li nga wax léegi ak yan gox ngeen cible ngi dem def fa sensibilisation bi ngeen wax. Mm-hmm. waaw voilà donc man xam nga ku xam gi xam ne doomu Grand yof la. Mm-hmm. donc te dañuy naan euh, séddale taamu ne ci kuddu yu njëkk ya donc euh, ku wat sa ànd rek ànd boo dem dañ ciy fekk sa borom. Mm-hmm. su ma joxee feneen tam te ñëkkee ma Grand Yoff du sofee moo tax man Grand Yoff laa ñëkkee vraiment sama waa koñ muy Gazelle Arafa Grand Yoff daal. Mhm. en général. donc on était là-bas mercredi passé sensibiliser leen ba pare jox leen li nga xamante ne moom lañ soxla parce que comme ni ma ko waxee léegi nit ki doo ko ne raxasul te joxoo ko lu mu raxasoo. dëgg la. nit ki doo ko ne solal masque te joxoo ko masque nit ki doo ko ne utiliser eau de javel te joxoo ko eau de javel doo ko ne toogal sa kër te ko ceeb. Mhm. waaw ma nekk nag xale bu ndaw nekk artiste yoruma dara nag mais lépp lu ma am maa koy bokk ak population mhm. te dañoo tool jamono boo xamante ni partage dafa am solo laaju ñu milliardaires yi laaju ñu képp ku am loo mën a séddoo nga séddoo ko ak sa morom. Mhm. donc euh, ci kaw loolu nag moo tax euh, ma lëkkaloo ak euh, entreprise bi ñu naan Magicom moo ma jox oto yi nga xamante dañoo nekk nii ci biir oto bi sax mais suñu wàccoon dinaa leen woon oto bi. Mhm. oto boo xam dañ ko branding li nga xamante ne a def mooy maa ngi lay dégg Guigui. voilà donc oto yi dañ ko xamante ne. Mhm. mooy nit loolu la war a loolu la war a def ci moment bi ñu toll nii mooy di raxasu. mooy booy sëggat nga def sa côte ah. Mhm. mooy euh, boo ñëndoo nga jël mouchoir bi nga sànni ko donc oto bi. rombee mhm. rek fi ñu romb yëpp ñi ñaa ngi xool donc xam nañ ne ñun. corona moo ñu tax a jóg moom la ñuy xeex dëgg la parce que neexoon na trop tey ñu nekkoon ay artistes di génnee ay clip ñu ñu di ko seetaan ñuy conseil ñu ñu ñëw di wuyu. Mhm. donc tey dafa afet tey ñun tamit euh, ñi bañ a toog suñu kër yi daal. alors ñu lay féliciter ci initiative bi nga xam ne def nga ko di ñaan nit na ñëpp xool ci yow rek ngir ni nga ko defee ñoom it ñu defee ko njëkkee fi nga xam ne nag mooy seen gox euh, yaa ngi ko wax léegi tamit euh, lu jëm ci li nga xam ne mooy euh, cas communautaire yi gis nañu ne boobu ba léegi. dégguma la bu baax chérie. la bu baax. attends je prends les écouteurs parce que dégguma la bu baax xaw ma ndax may dégg mais man dégguma bu baax. maa ngi dégg. ah, ah. ah, ah Ah, yaa ngi may dégg. waaw maa ngi dañ lay féliciter rek euh, ci initiative bi nga xam ne def ngañ ko. allo. Ah. allo. yaa ngi ñuy dégg. dafa bëgg oto bi gaare mu mun a wax. xam naa mm-hmm. ngelaw bi moo koy ma ne ñu ngi lay féliciter bu baax. allo. gi Guigui. taxaw na sax ne ñu ngi lay félicité laa wax ci initiative bi nga def. waa léegi nag lu jëm ci cas communautaire yi ba nga ci mën a joxe sa xalaat ndax gis nañu boobu ba léegi loolu nag moo tiital ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal. effectivement effectivement mu nekk loo xamante ne lu doy waar la parce que tamit euh, bëgg nañu feebar bi fu mu jógee ñu xam source bi mais boo xamul source bi donc ça veut dire que ne am na ñu fa am te xamuñu leen. Mhm. Euh, te li may wax rek mooy euh, dëkk doone nit ñi toog leen te amuñu lu ñu toogee ñëpp xam ne ne Sénégal ñëpp xam nañ ne ku xëy da ngay wuti loo lekk ñëpp xam nañ ne ku xëy da ngay wuti loo naan donc nit ñi da ngay gis ku feebar ah même pas corona da ngay gis ku feebar sax du dem feju da jël dépensé ko donc asatuma laaj moom yàq. Mhm. nee na ko toogal te amul lu mu lekk. bien vrai que na parce que nit boo demee di wuti loo lekk ba feebar aussi yow yaa tooñ sa bopp. Mhm. donc di ne nag gouvernement bi il est temps ñu que dañoo war a gaaw dañoo war parce que ku wax dafa war a ànd ak jëf donc wax nañu yàgg na depuis boobu ba tey wax nañu couvre-feu wax nañu lépp mais affaire yi dafa war a gaaw Sénégal dëkk bu ndaw la on est euh, presque environ seize millions d'habitants. Mm-hmm. donc saa veut dire que bëriwuñu. donc euh, te c'est bien structuré parce que am nañu mairie am nañu am nañu am nañu ay localité am nañu lépp am nañu préfet lépp donc ku ci nekk nañ la responsabiliser former ay comité. Mm-hmm. séddale bi gaaw parce que séddale bi. Euh, bu gaawul rek nit ñi duñu duñu mën a toog te Sénégal macha allah nekk nañu dëkk bu discipliné boo leen waxee def leen lii danañ dinañ ko def mais ci kaw loolu lan moo tax ñu koy def ak lan moo leen jaral ñu koy def aussi. Mhm. dafa am solo. donc nañu gaaw nañu ay actif parce que boobu ba tey wax jaa ngi fi mais boobu ba tey ñu ngi toog ah, kenn gisagul dara donc dama bëgg wax ji comme ni ñu koy waxee mu ànd ak jëf mu gaaw parce que population bi loolu lañ soxla. d'accord population bi instant yi boo leen di toogloo ne serait-ce que benn cinq jours wala benn dix jours quinze jours ñu confiné wu bu ñu amee lu ñu dundee rek lu ma leer ba leer mooy du ñu bougé mais njaboot sénégalais dafa am jom bëggul xëy toog di euh, kilifa yi jàkkaarloo ak njaboot. Mhm. amuñu lu ñu leen jox. ñu mhm. lekk loolu dafa métti. Mhm. loolu dafa métti. ah da ngay gis man bi may def euh, bi may def sama action yi. Euh, dama mujjee toog sama oto ah sama xarit bi may dawalal mi ngi nii toog di ma seede dama mujjee toog sama oto di jooy. Mhm. parce que dama ne ñun ñi ngi toll fii ba tey tollu soxla ba tey ah vraiment que euh, kenn euh, du ñëpp am mais ni ko nit ñi di soxlaa yow tu sais au fond ni ko nit ñi di soxlaawee tey bu gouvernement bi gaawee ci action yi muy def bu nee confinement ñëppay toog man loolu ma leer la. dëgg la parce que cas communautaire yi mi ngi bëri. te mhm. cas ku ko wax mooy source bi xamuñu kan la. Mhm. on ne connaît pas la source et c'est très dangereux. Mm-hmm. voilà donc euh, man sama man sama wax tey daal mooy mooy loolu sama wax tey mooy loolu. sama wax tey daal mooy euh, nañu réactif daal na gaaw na gaaw. na mm-hmm. gaaw mm-hmm. gars yi toog seen kër yi ñu confiné wu toog parce que tey euh, masque bi masque bi ngay jox nit ki tey pour tey la ak suba pour gannaaw suba buy génn day génn saa masque. voilà donc. bu ñu amee loo xamante ne moom la ñuy toogee seen kër yi man leer na ma ne Sénégal danañu toog parce que dëkk bu discipliné. Mhm. kenn gënul discipliné Sénégal parce que boo voyagé da ngay kontaan boo ne sénégalais ma man sénégalaise laa dañuy naan yéen da ngeen yow. Mhm. donc loolu euh, gouvernement nag bu population bu mel noonu foog naa ne euh, il est temps ñu jàppale population bi jox leen li nga xamante ne ñoo ko moom parce que ñun li ñuy jox. ñu ko ñun ñoo ko moom. dëgg la Sénégal ñoo ko moom donc dañ leen ko war a jox il est temps séddoo bi dafa war a gaaw. dëgg la séddoo bi dafa war a gaaw. voilà mhm. donc ku mhm. ci mënul bu ci mënul sa séddale man j'aurais préféré ñëpp am nañu léegi compte c'est pas de la publicité pour Orange Money mais léegi ñëpp am nañu compte Orange Money. Mhm. li ñuy xaar dem jënd ceeb di xaar muy stocké ñuy xaar fu ñëpp am mais xaalis mi ngi fii balaa ñuy dem jënd ceeb di di fay ay dépense ay transport truc comme ça. dañ ko euh, ménage bu nekk buñ la xanaa buñ la orange ma ni woon benn cent mille wala benn cinquante mille dañ ci sa saako ceeb sa dëwlin sa lépp nga toog mais bu dee dix jours sax di ko mën a toog lekk chéri dëgg la xam nga mais tamit mooy loolu daal li fi nekk yëpp kenn mënu ko wax mm-hmm. donc mais ñun li ñu war rek mooy euh, nañu def li ñu mën maa ngi wootal artistes yëpp ku ci mën ah mm-hmm. euh, ku ci bëgg na ma contacter parce que Magic comme mi ngi fii muy Papis Thiam di sama cousin mm-hmm. allo Guigui mën na la ko jox mu branding la ko ak ah. artistes yi wër lu ñu am ñu dugal ko seen oto dem jox ko seen population bi je pense que tamit artistes war na apporter loolu dëkkam. loolu dëgg la. yaa ngi doon wax léegi eh, ci sa kàddu ne yaa ngi ak Oumou saw di ko gunge Medina ndax jege na la. ah. ma ne yaa ngi doon wax léegi ne Oumou saw nga àndal. waaw Oumou Sow laa àndal ñu ñu jiitu di. ah bokkoo leen oto. waaw léegi Oumou Oumou euh, ngi ci oto bi ci kanam. d'accord euh, xam nga man lu ma xewle umu soo daf may ñëw jàppale donc keroog bi may def sama sensibilisation grand ñëpp xam ne feebar bi. Mhm. ku ci nekk yaa ngi naan toogal bul dem mais moom mu jël risque vraiment ñëw jàppale ma. Mhm. gis tam li ma def mu rafet mu ne ma géegi lii bëgg naa ko def ma ne ko amul benn problème prépare-toi de tout sa euh, tout sa qui est euh, produit de première nécessité. Mhm. ah nga nga teg ko. ma woo Papi Saaf mu indi ñu oto ñu dem Medina instant ñi dem nii Medina moom tamit sol na oto bi ba mu fees dell ak euh, li nga xamante ne moom la population bi di soxla comme ni ma ko waxee sànq. d'accord muy détergent eau waa Medina voilà. et aussi tous les artistes à faire pareillement comme ni ma ko waxee. su fekkee ñu may seetaan oto yaa ngi ci c'est disponible donc euh, machine comme c'est disponible da koy sol essence def ci lépp te climatisé. daf leen koy may. Euh, artiste loo munti allah. nga xool loo fay def ah. ñu ngi lay jaajëfal. merci c'est moi. merci beaucoup. alors euh, El Malick mu nekkoon nag gi nekk artiste moom it di def lu am solo ah, gis nga action yi nga xam ne commencé na ko te xaaru ci état di xaaru ci kenn ndax jàpp nañ ne tey jii du danga nga war a xaar état mais gox ba nga dëkk da nga war a ko tàmbalee def lu baax foofu. waaw mooy euh, xam nga li ñuy euh, comme ni mu ko waxee moo ñoom nee nañ ñoom li ñu am ak su néew. ci askan bi dañ ko jëlee donc jamono moo jotaat ñoom tam ñu delluwaat askan bi njukkal maanaam. kenn ku ci nekk. Mhm. en tant que artiste en tant que porteur de voix ci ak ci ci na nga mëne war nga am benn njukkal boo delloo askan wi nga xam te nii ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay déglu boo génnee cassette ñu raj seen bopp et cetera. Mhm. donc dafay nekk loo xam te nii euh, mu ngi koy waxee donnant donnant la win win la kenn ku nekk di nga ci gis sa bopp. Mhm. li li itam dana tax ba ëllëg ak si biir euh, bu ñu ko gisee ci mbedd mi muy sensibiliser te loolu la ñuy xaar ci moom xaaruñ ci moom rek mu ñuy wayal. ñuy bëgg non non dañuy dañuy xaar ci moom tam bu ñu toll ci njàqare toll ci tiit mu defal ñu. ba pare ne la kat nii la. Mhm. nii la mooy les mesures barrières ñu di ko fàttali askan wi ba pare comme ni mu ko waxee yëkkati masque jox la parce que jamono ji euh, euh, euh, masque sol masque dafa nekk à la mode. Mhm. parce que mi ngi am contamination communautaire bi donc sol sol farata la daal nit sol ko. naka la farata farata la ñu sol ko dafa nekk à la mode dafa bokk mhm. dafa bokk léegi ci suñu tenue. Mhm. ci suñu tenue suñu ni ñuy fonkee suñu chemise. Mhm. wala suñu pantalon loolu la ñu war a fonkee suñu masque. loolu léegi dafa nekk loo xam te ni dafa bokk dafa bokk ci ci colin. ndaxte loolu la waa kër docteur digle te loolu tam mooy sunu sunu sunu barrière bi nga xam te ni moo ñuy musal ci musiba bi mhm, mhm. bon xanaa kay di di ko félicité mhm. te tam di ñaan euh, ñoom arti ñoom euh, artistes yi kenn ku nekk indi sa indi sa feem sa contribution voilà ci li nga xam te ni moom la ñuy xaar ci yow euh, maa ngi ko doon wax sànq it dinañu dalal ki nga xam ne moom mooy Birahim Seck coordonnateur bu forum civil waaye it benn rappeur boo xam ngi tudd Julas King